bismillahi rahmaani rahim xasida jëm ci màggaluk ashrina muharram ak lu aju ci demuk sëriñ bi akuk dikkam ci Tuuba radiallahu taala anhu alhamdulillahi salaam lay tàmbuleeti fi kalaam musalliyan alal imaam yoneen ba jiitu sang ma del si woo muriti daam waa ju ko dégg nee ma naam nan wuy si Moustapha al Xumaam njiitul muriti bamba ya bis ba mu jëlee ahmadu daam indi ko tuubaa mu ne kaam ba tax murit di ñëw di raam màggal ko war na bokk ya taarixa ubbi woon bëtam ca wam sësin lali xëtam di fuglu Moustapha jëfam feesal na yaari feggu ya ma wax la lëf calam yaxal fésal jaloore yam saxal lisaanu xaala waxal ma wax lu foq nopp ya ca wom sa sin la bamba dem ba wom tësin atum renam téeméeri at yu feese ndam yéeg na ca sangub xarnu ya ku samp mbir di ko lawal téeméeri xatte bàkk la war na say géwél yelloo nga mboolem tagg ya tuubaa ngi raw nab capital jumaam ju mag yi yaa ko yaal indil ko raay bi am di daal gaddu nga mboolem raaya ya saytu nga yoon wi ba mu taxaw nga xàll ngir mi ñëpp xaw wooteel ko ñëpp wabbu ñëw jaaraama wub nga lamb ya màggal gi indi nay arab ak asiya ki ñooñ Europe wallaahi kenn du la xarab ëllëg fa gaay yàlla ya bis bii la yàllay dimbulee bis bii la yàllay jéggale bis la bu yàllay séddalee ay may ca gaay yu fekk ya bis bi la jar na war ci gaal di joow ba tabbi senegaal Mali Guinée ki Portugal ñëw na ñëgaay yi Gambia bis bi jar na war njanaaw mbaa roppalaan yi dëkk naaw ngir man di teel wuy si gaaw fëx leen te jàjj sàll ya jar nay fandaañu dox ci naaj ba ci ay manding di laaj bu dikkatee na ngeen ko waaj moo gétti bis yu màgg ya am de ko woote neel bërit ñaar fukki fan ciw tam xarit bokk ak ki jaambur xarit bu kenn geesu ngant ya Cheikh Moustapha du woote neen bul wuute lii du neeni neen tëlëm cëlëm du ngeen ko séen fàddu na wuggi baada ya xam-xam ba na seeni daa xamee na sunnatoog bi daa kàngam bu réy la moonu daa ubbee masal yu ya ak yewu jot na yewu leen ngëmmentu wéy na gimmi leen bu leen tangam lu wuy si leen ruy leen ca yegg ya ak yawu jot na yeewu leen nga mentu wéy na gimmi leen bu leen tangam lu wuy si leen roy leen ca gaa yu yegg ya amoon na gaayu yu yàlla yee ba tax na bis bi fu mu xayee ñu wuy si lëf du leen téye ci yàlla gaa yu yewu ya amoon na gaa yu réer ba bis bi mas la tax ñu buur neenal ko doy na ñàkk muur law la ma gaa yu réere ya jaaraama mbër ma ko tërën xarnu bi mat na sëkk ren wallaahi xam di yaajiroon yaa gétti péer yu gàtt ya sab samp mës la dang daay sa mbaar mi aw jënam du nay giñ naa ne yaa réyug wi laay ràngoo nga pal yu tedd ya yaanu jamal jaw fal fara te yaanu tàggaleeg mira yaa tax ba nuy soli dara fab kaala fas ca wagg ya géeju ngërëm nga yaa ko xuus yaanu duyal bagaan yu fees te yaay boroom daarul xudduus dundal nga mboolem njënd ya saw ŋàññuroon na yaadi mbër yaa nàmp yaari weeni ngor say ndëggu jub na yaa ko dara ca pays buur yu faddu ya sabaay ba yaa ko tër bi yaal njaboot gi yaa ko tarxi yaal wooteem bi yaa ko yaal siggil nga mboole mbokk ya jikko yeneen ba ngay daloo koddum sabaay ba ngay soloo jaaraama njol amintaloo siggil nga ndam ak kokki ya bamba la ràng ma yu teey waajal la jox la ab liggéey yaa gàddu raayow néegi seey jommal nga wuuri ceddo ya sabaay ba am na lam bëggoon wam sa si yow la fi tegoon cax la ca buntu bam gegoon yaa dégg cax yu nëbbu ya mat na xalifa mat na doom yilif na ñépp ngir jikkoom bër yépp xam nañu cëroom moo mën a jiite dann ya keroog ba bamba laxasoo mbër yépp dal di jaxasoo booba la Moustapha fasoo mott li mboolem dénk ya diglul ma wax la ak demam ak mag ña teewe ay mbiram waajal ko def ko ca këram keroog te faatuñ waxtu ya guddik ba lañ ko fat ñaar fukki fan ciw tam xarit wam sa si booba daa nawet murid ya xuus ca deq ya laxaw keroog fa njur belaa tax nañu fàtte karbala ngir kanu daa karal balaa fàdduna tagoog soppe ya yaari muhammadum yowoon xejjam yi ñoo ko waajaloon a dëggan yi ma ñépp miin tënd xiraw na gadd ya Seex Xari Jeeng ma sant Jóob moo leen ñetteel Bàmba ko sóob yitteem jërëy na la diib ci yàlla gaa yu sàmm ya xoqal bu kaw maa ngi jooy boobee ba tey ba faf ne wooy demam gi tax na ruu yi gooy fuñ deeti raase xont ya ñu daldi gaare abdalaay ca kër ga teg ca joojawaay keroog la am di wuutu baay te moo yebal way gunge ya bàmbaa ko woolu cib jataay dénk ko naa ko rikk waay bis booba tuubaa la lu xaay bum teema dem ci njënd ya yen ko fa yen bu réy te diis loolaa waral bis ba mu ne diis Cheikh Moustapha dikk ne suus muñ ba defal ko dénk ya la daam ajoon ci ak ñëwam tuubaa mëneefu koo xalam am di defal ko ak bëggam màggal gi loolaay yëlla ya keroog la Moustapha yebal juróomu góor ñu dal ko jël ci aw defin wu xel dajul dem nañ lu jiitu yëngu ya sëriñ Bachir mooy imaam njol soxna Fatima du maam moom la yebal mu indi daam daamar ji xët ci àll ya ànd ak Mouhamadul Amin ak tëndëxi cey woowe yoon sëriñ Matar si lan woon Cheikh Xari ci ànd ya buntu ba maam Cheikh Ibra Fall yettoon ca sawu kër ga daal fa la ñu jaar ma ne ko faal yaa yàgg digg junju ya watab sëriñ Balla Bariir du ci sa jiitu dib su feer dalaay ba ak ñëwoon ca biir raw nañ tetaaluñ lamp ya biléb safeer yëgul tinul murit ya ñoo ko nax asal muy fas ne ay bagaas la jël xanaa bagaas yàlla ya Cheikh Moustapha yónnee fa ndaam ak cerno ak gédé imaam ne leen na ñépp seeru daam mag ñépp ñal gu guddi ya Cheikh Abdoulaye Diop taxaw sëñ Maamuram Jaxate ñëw ñu àndandoog seex Ibra Ndaw gas kër gu mel ni du ya Cheikh Mbàkke bu sa jóg taxaw jullee ko sàppee selaw te feeñu luñ fa jëfi ndaw rëtuñ ba sànk sunna ya bam sërmalee la dal di buur wàcc ca bax ma mel ni weer Cheikh ma Lamine ngay dem ca biir Cheikh mu dundumbe sang ya yaari muhammadoom yi jël jëmmam ji jox leen ko ñu jël jébbal ko yàlla miy dogal keroog la tàggoog coono ya cheikh mu dundumbe waayi saam moo mujj génn pax manaam moo mu jëlal yaramu daam jëwriñ la wër na dongo ya sëriñ bi am na ak bëggam def na ci xol yi gépp ngëm dem na ba delsi ci dëkkam desul ci àlli kongo ya inna lillahi yooni yoon inna ilayhi rajiun bisub keroog ña fekke woon risoo ñoog malayka ya maam cerno teew na booba bis mësula am ci seeni bis demam gi raw na mépp mbas yëngal na ruuyi xej ya alxaaji fallu ngën ji doom ñëw na te indiwul sagoom bisub keroog mbër yépp laxew la xajul ca bopp ya seex abduloo ba fa ndaam murit bu saadix la fa daam seex yëddu jaañ sëñ muudu laam seex asu juuf ca sàppe ya sëriñ Momar Mbay Siise Jaas Seex Muudu Mbay Caloom na Jaas sëriñ ma joobam tob bi baas yéemal murit yu dëggu ya Seex Baara Sill Baara Faal fegoog murit ya Cerno Faal Muhammadun Saadix ba Faal ci yàlla gaa yi Bamba ya sëñ Saadix ak sëriñ Abbaas mu sooba yooyee ñëw di raas tee ma ne woy woy ma ne baas Ahmadu jooyleel dongo ya xanaa ñenoon Seexil Xadiim Njurbel la des ñoo gën a juum firnde ngi nii te duñ ko miim kuy wax na indi firnde ya bis bii la am di woote woon te ànd koog ña fi ne woon ca Samsudin la ko sosoon moo gétti bis yu mag ya màggal gi moonu ko digal dinu ci waar ak a digal ngir bëgg noo fegal mbugal bu leen di fàtte digle ya defin wa jar na fàttalee ci alxuraan lay tàmbulee bul fàtte nam ko toftalee booleeg durus xasiida ya sëriñ Masamba Aysa Jéey la jiitaloo bëlëb liggéey bàcc gomaay ba mos liggéey mooy jekki jiite jukki ya ñanamtu kaamilam la saam ci biir barab ba ne ma naam koñ bu ne aw nit ne fa kaam askey ca njàngum dongo ya ñu tas fukkam yi topp ñaar jukki ko jox ko ay xiyaar ñu sax ca mixraab ba di xaar durus ba dégg noddu ya ñu dellu tas fukka ki jukki ko séddaley kibaar ca biir jumaa ja foofa jaar gis leen ca fenku keno ya yanantu koñ ya foo ca aw teg nañ fa gaayu fa taxaw guddeem nga kenn du ca nelaw foo dégg foo tollu dégg kàddu ya jësbul xulub muqaddimaat mawaahibu kimimiyaat ñu jox ko gaayu neexi baat ñu sax ci jàng tagg ya daarul xudus fanaane riir zigroog salaatu kenn du ruur ñëley fanaane joxe reer njàng ma ànd ak bernde ya yëlay kuréel ña ngay durus yëlay kuréel yori kurus xam ngeen ne am di lii mu sos aw na ca xalli sunna ya bu ñu xëyee di ko siyaar mu nuy digal te waar fàttali yoon wa bamba jaar ba jiitu gàyyi yàlla ya te nee na waaju fi fanaan set nga ci bakkaar ak i daan te leenu te nee na loolu moo ko ñaan bam am ci ñaan yu nangu ya te nee na waaju fi fanaan set nga ci bàkkaar ki daan te loolu nee na moo ko ñaan bam xam ci ñaan yu nangu ya te nee na waaju ñàkk paas ba mën la ñëw tuubaati taas na jaay mbubbam te wut ca paas ndéem xam na yari mbubb ya te nee na waaju ngant tax ba mën la ñëw tuubaa na dox aw yoonu tuubaa ba marax mu toog dundal fa guddi ya ku ngàbbu àddiyam di ñëw gis am kemam mu mën la ñëw na ko ko jox ñu ànd ñëw saa soxla moo di jëmm ya nee na doon gunge si daam min jundi nee na doon gunge si daam min jundi maalikil anaam bu at mi del see ñu ne kaam ci bis ba ànd ak dongo ya te daana digle ñuy bale dëkkam bi buub ko dajale ngir bis bi yàlla day bale bàkkaari gaayu taq ya réew yi Europe yi wuy si leen réewi arab yi wuy si leen doonay xadiimu woone leen bu leen tànqam lu woote ya bu leen gëlëm ba ñàkk muur bu leen nelaw ba diñi reer bu leen di kër-kër yi bëréer njàccaar du roy ca gumba ya faral taxaw ahmadu baas cofeel gi rekk moo la daas te xam ne doo way aka taas ba jot fukkeeli mata ya bu ñàkk yaay day nam